jotaay fukkeel beeg benn Zuleyxa mi ngi noonu euh, ak ay mbindaanam ñu nekk ci wetam waaye bras am nag mooy kalimama kalimama moo féete moo mooy mi ngi nii mooy ki nga xam ni moom la ñu Zuleyxa waxoon demal nga solal Yusuf yére bees nga changé ko ay yére Euh, gis ngeen ni mu moom gis na taar bu taar bu rafet ci Yuusuf daa mel ni daal yàlla yi ñoo la solal ay yére rafet ndax d'accord nga man sama xalaat woote wool leen ma Hunifur nga xam ni moo yor aju ci wàllu pale bi yépp mubashirul xasr lépp luy doxal pale bi ci loxoom lañ ko teg lii gis naa ko ci suufu yére Yusuf Yuzarsif ci biir yére mi laa ko fekk ca mooy fooy ba nga xam ni moom lañ ko jaay woon nee na lii ثمة رجل يدعى شمعون أقدم على بيع نعم كوني واخ شمعون موكو بند يجب أن يكون هذا في خزانة قصر وانا ني موم لينكو موي لينكو جاي وون موني لي دي كون دنج كوي دنج كوي بولا سي li nga xam ni mooy kayit yi ñuy denc ci palais bi uniforme mi ngi noonu mooy bras droit buur bi loo may doyee si kilifa gi nee na ko dinaa la ko dénk Youssouf dama bëgg nga yar ko xamal ko li xew nan la ñuy saxe ci pale bi nan la ñuy lekke nan la ñuy jëflante kilifa yi yow ko waaw yow dinaa la de kon dinaa ko boole ci ñi nga xam ne mooy ñi liggéey ci pale bi te du am benn liggéey bu metti gis ngeen ma ngi koy si jootloo Yusuf bañ xamul loolu ndeysaan dèjà mi ngi koy commencé jox première leçon pour mu sëgg comme li ñuy defal buur di leen si jootal est-ce que jàpp nga ni ni mu sujjootee euh, respect la ci la ci la ci jublu. naa ne ko ah ñi dëkk ca kaw ga di sàmm ay sàmmkat xamuñu dara ay dof lañ. nee na ko yaakaaruma ni daal li mu ko def mbëggeel ak cofeel moo tax mu def kii xale bi rafet na. nee na day bañ nga wóoru nag yooyu moom bu ab taaram moom boo ko feeñalat. Karima maa gis ngeen daa xaw a soxor moom. waaye Hunifor gis ngeen ko moom lañ booleeg Youssouf léegi lépp loo nu ñuy jànge pale ba gi xew mbokk yi mbokk yi déglu leen fii am solo nee a nee na xawaasul xawaas rek ñooy wàcc ci fii nga xam ni fa nga jógee mooy Zuleyxa ak borom këram. nee na ko bala nga àgg ci néeg booba faaw nga jéggi ay juróom-ñaari bunt mbokk yi bàyyi leen loolu xel juróom-ñaari bunt yi di ngeen ko gis ca kanam nee na fii amul kenn dafa dugg wala mu fiy génn juróom-ñaari caabi yépp juróom-ñaari bunt yi caabi bu nekk bu nekk caabeem mi ngi ci loxoy Zulayxa fii nag mooy fi nga xam ne fi lay dalloo mu jàkkaarloog niil. من هنا يسعك أن ترى بسهولة fii ngay jaar fa dem ci Niilul Kabiir montagne la ngay gis moom la ñuy tuddee alamu alwaa mu amwaat mooy adduna ñi dee néew yi foofu lañ leen di denc pyramide yële ngay gis mooy ahram yi foofu la ñuy denc ñi nga xam ne ñoo dee mooy alamul amwaat le monde des morts fii néeg bii mooy néegu Zuleyxa a rëy rëylu la moytul nag mooy ay ay ndigalam parce la ku fonk kàddoom la te gëm kilifteef lu mu la diggee rek na ko def. gis nga ñu koy xamal li xew pale bi yëpp. fii mooy bureau bi nga xam ni mooy fi la buur bi di féexloo moo ñi jiite ñi jiite Misra yëpp moom mooy ñaareel personnalité bi léegi nag war ngaa xam nan ngay sëggee ci kanamam li nga xam ni lu jëm ci wàllu respect la yëpp nga xam ni nga ko war a defee sa diggante ak moom. kii mooy suufur téere yi nga xam ni moom la buur bi war a liir moom moo ko yor kon fii mooy chambre bi nga xam ni fi lay buur bi di dalloo fi lay liir ay téereem. beneen néeg a ngoog Potifar soxnaam mook soxnaam fii la ñuy lekke fii la mooy seen salle à manger ñii ñoo di préparer seen i lekk allahu akbar man damaa war a xettali Youssouf ah, faaw ma am pexe nee ko mën nga koo fekk ci nee na koy boo moytul day da ngay mujj nekk jàmm ci ñoom rek. وهو في ذلك القصر المهيب إذا كان قفص الطير جميلا أفلا nee na bu fekkee picc mi picc mi kaafam gi dafa rafet est-ce que kon kaaf gi war picc mi warut a mën a nekk ku gore ku gor nee na faaw ma jël ko yóbbu ko ci baayam nee na ko waaye ni ko buur bi bëgg ak soxna si ak yaakaar naa mënoo cee jot. nee na xam naa ne Yaaqub dana dee ak maanaam xol xolam dina tàkk ak métti ci li nga xam ni mooy taxali googu mu taxale googu Yuusuf. nee na ko gaaw leen ngeen jaay matériels yi fi des bagage yi fi des ak marchandise ngeen daal di ñibbi. man moom man fii laay des ba ci kanam. ngeen mbokki fale ñu noonu. waaw léegi nag jox nañ ndigal ñi nga xam ni ñoom la àndaloon pour ñu jaay li fi des ci marchandise daal di dellu moom li mu dogu mooy mu des ci dëkk bi ba kere mooy jot ci Yuusuf ñeen ñëpp ngay sëgg mbokk yi fii nag la jami yi nekk jaam yi ak ñi nga xam ne ñooy surga yi liggéeyal pale ñoom ñoo dëkk fii gis nga ak seenu njaboot xoni for bi xoni ñëpp ñi ngay gis ñëpp fii la ñuy liggéey waaye lépp ñëpp tamit am na ay baykat am na ay sàmmkat ñu bëri ci liggéeykat yi góor ñeeg jigéen ñi ngi seen place bi nekk nii nekk ci nekk nag place néeg bi nga nekk ci ngay liggéey. لماذا هؤلاء معدمون إلى هذا الحد؟ la moo tax Prévoir yërëmu leen du leen taxaw nee na ko bàyyil ba ci kanam ba nga gis seen liggéey nga xool ni ñuy liggéeyee dëkk boobu ñu wax Tuuba ni ñu koy bayee Tayba moo tax gis nga fii fi la ñuy sax fi la ñuy lekk tamit xale yeeg jigéen ñëpp nee na nga ndax di ma may benn bis mu ñëw ziyaare si leen mun ko loolu koy amul benn problème waaye da ngay laaj ndigal ci Potifar ba pare ak Zuleyxa bala ngay ñëw di leen visiter si di leen ziare si ñii nag ñoom lañ dénk wàllu buri bi ñoo koy defar mooy jaam yi ñii lañ dénk lool fii nag mooy foo yi nga xam ne ci la buur bi di bind ay lettre ak yooyu fii lañ koy defaree ñu koy ñaanal naa ko huni far yàlla na ko yàlla wat gis nga ci la ñuy bind discours yeeg yëpp ci la ko buur bi bind nee na ko lu kii bu cher la nag bu baax la ndax mën ngaa bind yow Yusuf ki ma bind ki ma ki ma bind moo ma jàngal nan la ñuy bindee akbar loolu li nga wax baax na de. ah nee na ko de sang bi kilifa gi de am na am na am na jaam boo xam ni mën na lépp nee na ku la xamal loolu foo xamee loolu ki gën a yeej sama bopp sama bakken bi moom a xamal lool ki xam làkk yëpp moom ma jàngal làkk boobu parce que loolu ko laaj garaawul nañ dem mi ngi doog a dégg baat bi de nee na ko waa kan moo la xamal bind ak loolu mu ne ki nga xam ni moo jàngale làkk yëpp. mu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ba tey tuddal gu ko yàlla ji waaye da ngeen si muy dugal ay baatu jàngale ndànk-ndànk. fii la ñuy fii la fii la ñuy defaree tissu nag. tissu yooyu nag ah buur bi liggéeyam yi lu jëm ci yére ñu war a sol yëpp ñu ko gën a mën la tànn pour ñu koy defar. usine bii nag li li muy defar mooy ñi ñi nekk ci palais bi rek lay liggéeyal. waaw bu ko defee nañ la defaral yére yi gën a rafet bu ko defee Zuleyxa même yére yu gën a rafet yi muy sol fii lañ koy defaree usine bii pour ñi defar yére yi ñi nekk ci palais bi ñi servir palais bi ak ñi liggéey ci palais bi ñoom fii lañu liggéey seen yére ci usine bii lañ koy defaree. koy gis ngeen Égypte li mu yàggee avancé développement moom yàgg nañ ci lool moo tax ñu tuddee ko berceau de l'humanité nga fii la ñuy defaree ndaa yeeg yooyu ak ndab ثمة عربة مرت فوق بضعة أنابيب مخصصة لنقل الماء فحطمتها nee na ba sario bi nga xam ne moom la ñuy moom lañ daan daan teg yenn ndaa yi ñu doon def ndox da ko yóbbu fële na ngeen na ngeen changé ndaa yooyu parce que dafa commencé yàqu جيد fii mooy magasin bi nga xam ni mooy magasin palais bi façon pepp yeeg dugub yeeg yëpp fi lañ koy defaree nga xam ne dafa jëm ci waañu pale bi yëpp fi lañ koy defare jëm ci dugub yeeg gis nga waa ji mi ngi xool taaru Yuusuf bay tuur affaire bi ci yëgu ko lan moo la jot xool li def yaa ngi tuur affaire bi ndeysaan Yuusuf rek lay tuur sëgg di xool ba mi ngi tuur dugub ji ci suuf ndeysaan yëgu ko xool moytul baax على ألا تتكلم أو تنبس ببنت شفا إلا إذا وضيت nee na ko bul wax dara lu dul ñu laaj la benn question. jigéen ku mën a réy réylu la moom Zulaykha. وكسائر المقيمين في البلاط يسعها أن تكون. moo nag nee dafa dañoo war a nekk ñu am yërmande nag waaye fi mu nekk ñoom dañoo xaw a soxor gisoo ku ci juum wala nga def erreur bu ñu la jàppee caw yu métti lañ lay caw mbokk yi ñu xool ñaar ñenn lañ def da ngeen leen gis ci kanam. fii mooy waañu pale bi façon lekk yeeg yëpp fi lañ koy defaree façon lekk yu nekk nga fi gis jaam yi tamit fi seen lekk fi lañ koy defare ak ñi nga xam ni dañoo nekk direct ci ci buur bi ñoom ñëpp waaye nag ñoom Zulayxa ak buur bi da benn place spéciale lañ leen ni defaral seen lekk. Ah, nee na ah lu tax mu nekk ay façon lekk yu wuute ñëpp kay xanaa dañoo war a bokk benn plat dañoo war bokk lekk gi ñu lekk ñoom ñëpp mu ne laaj nga laaj bu yéeme de buur bi ak Zuleyxa yow mu ñoo ngi ñuy jëriñee tamit nag bokkuñu ak jaam yi ak liggéey liggéeykat yi nag façon euh, kon bokk comme que bokkuñu daraja kay duñ bokk ay lekk kii mooy Yuzaar Siif dana dénk nañ ko lépp liggéey boo xam daf leen dimbali. xale bu mën a jàng la waaye ku mën a bind la tamit xelam ñëw la léegi façon lekk yi war a génn yëpp moom moo koy bind mooy livré livraison yi moom lañ ko dénk luy dugg ak luy génn yëpp moom moo koy livré moom moo koy bind gis nga gars yi liñ la bëgg de gars yi ah ñëpp ñëpp ñëpp bàyyi nañ seen liggéey ñëw di la seetaan lan moo leen indi fii daw nañ dem leen liggéey ngeen di seetaan nii ndeysaan taar bi lañ mës a gis ay kon ne leen liggéey bi bachirul amal bi maana amalikum mbokk yi gis nga yu ñu koy présenté fépp pour mu xam fu ci nekk lan lañ fay def ak pour bu fa accès fii mooy église bi xoola kii di xulli ba daanu moom Potiphar ak ak ak ak ak Zuleyxa fii dañuy ñëwee pour ñaan li ñëpp dañ ko def pour mu wattu yàlla yi nag xanaa da ngaa bëgg a wax ni kon seen place bi place bi aar yàlla ji nee na déedéet loolu sax dañoo bëgg mu aye rek yooyu rek mbokk yi fii mooy église bi nag. mbokk yi xool leen fee nag seetaan leen ñaar ñële ruda mun mi ngi noonu mooy général bi yàlla na nga dund yow xoni for xanaa ah, gis naa la ngay ngay ngay surveiller di xool pale beeg yëpp user type la àndaloon pour wan ko place yi nekk ci kii bi ah parce que dafay war a sax war fee nekk lu xew ñee def kenn ñoom ñaar dafa socc sàcc ay or ci palais bi ñii ñooy garde palais bi daf ci am ko xam dafa sàcc or ñoom ñaar ñëpp bañ nañ ni ku ci nekk wax nañ la nga ni nga ni jëloo ko baax na Yuusuf nañ dem waaw ñoom ñaar ku ciy sàcc bi sax nañ leen yeew rek bu ko defee ñu xam kan moo ci sàcc mbir buñ nangul rek na nga leen duma ku ne gis nga maa ngi waat ku nekk yaa ngi waat naan sàcc ma waaye leen seen wax ju bari ji mooy dajij fawda dajij fawda yooyu yëpp benn baat la dajij dawda fawda baleen ko on y maa ngi lay waatal ci yàlla yi nii man defuma benn bàkkaar defuma dara nee na ko man man tey sax gardé wu ma woon moom moo waroon aye gardé waaw man li tax ñu indi ma fii moo ma jaaxal man moo waruma woon a gardé kon ñu may ci jiñ bëgg naa ngeen wax na mu gën a gaawe kan moo sàcc mbir mi sinon yéen ñaan ñëpp danañ leen danañ leen pine danañ leen duma. nee na ko yow yaa ñëw ci place bi nga waroon a انا انا حضرت في موضع nee na déedéet man du ma def loolu moom mi waxul dëgg moom moo ay woon garde kon bañ sàcc mbir mi kon moom gi loxoom génnu ci nee na ko man damaa gi xawoon génn benn diggante rek وهل كان القصر مهجورا في حينه حتى تراني دون الآخرين؟ يتوجب على الحارس garde ñee dafa war a dafa war a dafa war a garde xool bu baax liñ ko dénk loo doon nelaw nee na ko yow da nga sàggan fi ñu la dénk nga war koo garde looy sàggan ba keneen jaar fa jël ko nee na ko wallaay man sàccu ma dara sàccu ma dara yàlla ma nattu ma nelaw rek. nee na ko bàyyil kenn nga ki ci ki ci sàcc nga nga jàpp. Ah, ah nee na ko bàyyil kële nee na ma ngay waat nee na yërëma wala def ma dara waaye mbokk yi ñu xool Yuusuf na la yàlla xëpp safara lan tax ngay nëbb dëgg gi wallaay man sàcc ma mënu de maa lay waatal kii Yuusuf nee na est-ce que mën naa la ñoom ñaar kee bàyyi nañ ko ba pare moom déedéet bu dugg ci lii affaire boobu. moo ni wala maa ngi lay firndeel li man man naa laa wax sàcc bi may ma rek ndigal mu ne ko ba doom may ndigal ah kay loo ko mën a ràññee yow tamit ñoom ñaar ko ci sàcc bi noo ko a ràññee sama bàyyi laa ko jëlee allahu akbar lu jëm ci wàllu atte yi sama bàyyi gën a xam ci àdduna bi ci ci ci ci nit ñi man xam naa ñoom ñaar ko ciy sàcc bi li ngeen foog du loolu ndaxte wóor na li ngay wax waaw waaw ajal ayyuha almuhtaram léegi rek nga gis ko say bëti bopp moo ma woon la sàcc bi léegi garaaw baax na aywa nan la ñuy def ah discussion bari na de mbokk yi kenn na bañ tekki ko ba pare Youssouf ñëw dimbali nag xool ni mu leen di xoole rek man xam naa sàcc bi ana damaa wax damaa bëgg mu nangu léegi mu nangu balaa ma koy weer ah, déedéet man li may wax mooy man ah, fa ñu sàcc man gardé wu ma woon foofu waa ji na nangu ni moo sàcc wallaay def ma dara sàccuma man gis naa muy génn ci néeg boobu man xam naa ko ci xet yéen ñaar na xelam dal ki xam naa kii sàcc bi dinaa ko weer léegi bu waxul mooy kan. damay digal Hunifor su ma leen waxee sàcc bi kii la rek na dëgg baatam. déedéet man bëgguma ñu dëgg baatam dama bëgg ñu wax ma kuy sàcc bi rek. man benn yor laa koy door mu jeex. waaw waaye bul ko siiwalagum léegi ñëpp ñëw nañ nag. yow Rudamun ñoom ñaar ñëpp nañu nañu nañu sëkk nañu àgg suuf nañu rokko maanaam nañu sukk sukk seen i ma wan leen léegi kuy sàcc bi. ah allahu akbar nañ takk seen bët yi aywa def nañ li mu wax nañ takk bët yi mbokk yi xool leen stratégie bi Youssouf defar bi muy def aleel ma seen mouchoir yi ngeen yor teet teet teet ñëpp jommi nañ ña ca église baak ñëpp ñëw nañu man ndax lii mosuñu koo gis xooleen mbokk yi xel mi Youssouf di demee xoolan fii mbokk yi baax léegi sàcc bi dinaa ko may dernière occasion mu wax moom mooy moo ne boppam bu yeexee rek dana rodomu dana dóor dox bi danaa wax kan la ca dina ko dóor mu dee xool fi mbokk yi kii mooy sàcc bi kii mooy sàcc bi buy mag a wax mun ko noppi noppi rek génneel sa jaasi rek di nga wax dégg ngeen waa ma ngay jooy de ay bu leen dagg sama baam neen dóoral baat bi koo koy koo koy sàcc dégg ngeen wax na dinaa nangu man la maa ko sàcc baal ma baal ma bul dóor sama baat baal ma ñëpp a ngay reetaan ndeysaan <laughs> yow kon naroon ngaa tooñ ci Youssouf rafet li nga def rafet na. <laughs> mbokk yi kook ngeen bàyyi ko xel nag dana am feneen fu mu dajeeg Yuusuf ca kanam a kanam xol na ko bëti yëngal na bopp ba ceet tet tet tet tet rafetal nga yow sama doom ku am xel nga man xam naa ni di nga di nga feeñal mbir maa lay sant waa ji lañ bëggoon a rey nag jugal jugal jugal bu bu budul woon man danañ ma denc kaso ba ma dee fa yàlla na yàlla aari la. nee ko ba ma ba ma weeree émi émi fa dama amoon naa ca lañ la daal di fe te nga daal di mucc nee na ko bis boo sàggane tey ba fi nga war a ne nekkoo fa danañ la mbugal nee na sant naa leen gërëm naa leen. gis ngeen kële da ko gënoon rëy làmmeñ ba ñu nar a yóbbu kii waaye Youssouf feeñal dëgg gi sant nañ la gërëm nañ la jërëjëf léegi nag. boo moytu mu jur kaabu rëy ci pale bi nag xale bi kenn gënu ko amuus gis ngeen ni mu attee affaire bi xale bi daal ni mu rafete noonu la xelam rafete waaw man li ma jaaxal mooy xale bi ni mu def ba feeñal sàcc bi rek ah mu ni fër de noonu ah, yàq yàkkamti na àgg ca ca kilifa ga ba bégal ko lii nga xam ni gis nañ ko tey ca mu jaaxal leen nee na waa ji daa jàppoon ni dañuy dagg baat bi mu daal di nangu ni moo sàcc mu commencé yuuxu naan bul dagg sama baat bi maa sàcc bi maa sàcc maa sàcc or bi bal naa nangu naa sama bàkkaar mu ni xel moomu ak pexe moomu ci la Yusuf feeñale sàcc bi kenn am xel musta dem ci moom ni xel mi ak àtte bi dana ko andi. maa ngi yeesal sama cant ci kilifa gi ah, xale bii nga xam may na ma ko te li ci gën a yéeme mooy daa mën a bind mën naa bind mën naa lekk léegi nag tey jii kenn dootul lekk lu ëpp sa soxla ndaxte lépp loo aju ci distribution bi lu ñu war a distribué a pale bi ku ci nekk la la nga war a jot dana la ko jox te doo ne ko yow ah foo jànge loolu bind ak léegi fan ngeen bëgg ma teg ko fa nee na ko loolu kay ñun duñ ko saxal waaye yaa koy saxal loolu leer la kii nañ ko yóbbu ca jaam ya amul beneen pexe xoolal sa waay soxna si déedéet duñ ko dugal ci digg jaam yi de fii ci pale bi lay liggéey ci néeg ba ma ko joxoon loolu mooy chambre am fa lay dal waxal Yuzarsif ndaxte ne néeg boobu yéem na la neex na la maa ngi lay sant bu baax soo ma joxee ndigal daal dama bëggoon daal liggéeykat yi ak jaam yi fañ nekk foofu laa bëgga fanaan nee na ko déedéet ku ci nekk fa muy nekk man maa ko fay teg baa xam nga loolu gis nga la ko la ko so waa ji waxoon ñëw na nee na ko jaam daal daa warta dugg ci pale bi bu ko defee jaam yëpp bu ko dugalee ci pale bi jaam yëpp nañ ko iñaane nee na ko man maay joxe ndigal man maag borom pale bi ñooy joxe suñuy suñuy orientation keneen du joxe xalaatam laaj ñu kenn xalaat fii amul lu amul laaj ñu ay xalaat tanfis la mooy wéyal rek exécution la gis nga la yàlla waxoon wala kadalika kadalika makkanna li fil ard tamkin boobu muy yàlla may ko ak dal nga xam ne lépp lu jafe-jafe mettit mu génn ci ngeen gën naa am doole ci pare bi sama doom man yàlla musa wërsëgalu ma doom damaa bëgg nga jàppe ma comme sa baay saa yoo amee jafe-jafe rek bu ma rusoo wax sa jafe-jafe ma faj ko maa ngi lay sant ndeysaan si ngeen goor gi yàlla dogal na amul doom mun ko dama laa bëgg a jàppe sama doom nga jàppe ma comme sa baay lépp loo xam ne jaaxal na la rek nang ma ko wax lépp loo bëgg it nag ma ko wax suba ngoon danañ ci taxaw gis ngeen yàlla defal na ko tamkiin nag macha allah commencé naa sol a yére yu baax jafe-jafe yi génn waaye mbokk yi est ce xelam du dellu ci baayam saa yu nekkee ci bànneex rek xelam ci baay ji la njëkk a dem ca est ce que baay ji nekk na ci bànneex allahu akbar ay waay sama baay bi ñàkk na waay maa ngi ñaan sama sama sama maa ngi ñaan yàlla mu dimbalee ko yenkeewal ko ak ak muñ gis ngeen baay ji mu ndeysaan ba léegi mi ngi wër moog rakk ja moog Benyamin yéen tilli kanaan yi maa ngi leen di woo yéen tilli kanaan yi man maa ngi leen di woo yéen may dégg lan moo tax ngeen déglu yéen ci lii mbokk yi déglu leen fii Baye. tilli yi mën nañoo wax comme ñun muy waaw waaw su ma leen wooyee dana ñëw de danañ ñëw fi danañoo ton allahu akbar waaw ci ma ci machi alay ñëwee mbokk yi xool leen lële allahu akbar woo na tilli yi représentant tilli nga xam ne mooy seen kilifa moo war a ñëw wax ak yonent bi kooku nag loolu la ñuy wax alkarama mbokk yi fii ngeen déglu ko baax alkarama la tudd muy loo xam ne yàlla dana ko may wàllu yàlla am na loo xam bu ko junjee rek nit yàlla gi rek yàlla defal ko ñu xool till gi lan lay communiquer góor gi ndaxte góor gi am na question yu ko wax lan la ko bëgg a laaj cay allahu akbar innal karama xaydun lil awliyaai fala takun munkiran innal wasfa lillah loola moom alxaaji Malik wax radiallahu anhu nee na karama góor yàlla nag nit du ko feeñal nit ku baax bu yàlla joxe karama doo ko feeñal mu ne ku ngeen gis góor yàlla gu ngeen gis muy feeñal karaama ah nee na ko ni nee na feeñal karama mi ngi mel ni jigéen gu ah bu indisposé di di wane boppam nan man damaa gis damaa gis baax nee na noonu la soofee waaye nag karama lu am la yàlla dana ko tëbb nituk yàlla gis ngeen bàyyi ji bi mu bëggee xam li xew dafa dem ba ci till ya woo leen ñu ñëw mu laaj leen ndax sama doom yi a ko lekk ñee na ko wax leen ma fi ngeen def seen seen rakk Yuusuf ñu xool lu leen góor gi indil wax leen ma ndaxte dem na ci àll ba wax naag bi wax naag bàyyi ma yi ñëw na loolu yàlla man yàgg na ko may ay yonent tontu leen ma yow laawi nee na nee nañ la tilli mun ko waxal waxoo dëkk waxoo dëgg yow ya yéen laaj naa tilli nee na di xamuñu dara ci ñu ñu xamuñ sax Youssouf nee na ko tilli nan la mën a waxee man Benyamin nee na waaw waaw man kay waxtaan sama baay waxtaan na ak tilli ñu ne ko Youssouf ñun lebbuñu ko wax leen li ngeen def ci Youssouf balaa heure bee passé wax dëgg jot na ñun daal la ñu waxoon dëgg la ñu waxaat rek tilli yee lekk ah. bu leen bu leen tuumaal tilli yuusuf ci seen loxo lay nekkoon nekkul ci tilli tuub leen dellu ci yàlla tuub leen dellu ci yàlla waay wax leen dëgg mbokk yi gis ngeen ñi day seytaane moo ferenkulaay seen xol yi seytaane moo ferenkulaay seen xol yi moo tax mënuñu wax dëgg Benyamin nee leen aha kay ànd naag sama baay dem na ba ci till ba till yëpp ñëw mu laaj leen ñu ni ko lekkuñu ko gis ñu sax Yuusuf bàyyi ñëw tuub leen dellu ci yàlla waaye bañ na xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim xishawa yàlla ubbi na buntu tuuti heure bu nekk man musuma gis jëmm yu mel ni yéen yu yàqoo yéen nga xam ni seen xol yi daa wow ba mel ni ay xeer ay waay tub leen dellu ci yàlla mbokk yi gis ngeen day xadama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawa gis nga yàlla moo kase seen xol yi seytaane buuf ca nag moo tax pour ñu kii du jafe du yomb gis ngeen Malick mi ngi tàggoog fale tàggu naa la yow Malick ba keroog ñuy dejawaat tàggu naa la yow tamit ndeysaan ah mbokk yi gis ngeen day ñaar ñii ñoo àndoon ñëw waaye day àndu ñu dellu moo tax sens dafa baax am sens dafa baax waaye teey dafa baax ak u dal dafa baax waaye ubbi sa xol dafa baax def ndànk it dafa baax loolu moo may falex li mu am ku teeyoon la ku defoon ndànk la moo taxit alal ji fëkku ko foon ko woon ba tax na jot na ci Yuusuf mu xamal ko yàlla xamal ko diine ba gëm na yàlla léegi nag loolu njariñ boobu la jële ci Yuusuf ba fas yéene mi ngi noonu di dolli di ñibbi seen dëkk waaye nag yi ñu xool Zulayxa mi ngi noonu nag ak euh, borom këram ñu ngi lekk fii xam ngeen ni présenté woon nañ ko Yuusuf ñu ko fii mooy salle à manger moo bu waaye mbokk yi gis ngeen façon lekk yu nekk fi nekk woo leen muy yor ci ni gën a gaawe at at. xam naa ne jàpp naa ne daal du ñu wërsëgal doom bu mukk du ñu am doom bu mukk ndax seen i ay at amuñu yàlla nag xañ na la doom. nee na pourtant suñu mariage yàggagul de. kan moo la wax ni duñu ñu wërsëgal doom mën nañoo am doom de. ak ni ma ni ma ni ma ni ma fonke yàlla ji. Hmm? yaakaar naa danañ am de nee na ko suñu daal ba tey sikki sàkk amu ci waaye gis nga cofeel gi ma la bëgg moo tax ma may la Yuzarsif damaa bëgg nag nga jàppe ko doom nga am doom ju mel ni Yuzarsif nee na gis nga bëgg gi ma la bëgg daal amul leneen lu ko mën a rax Yuzarsif moom bàyyil ma ko rek ndaxte sama cadeau la bàyyil ma ko rek taxaw ko comme ko. waxe woon ida xadata wa ruziqna bi waladin data yawm nee na suñ am doom est-ce di nga gis dina rafet dina rafete ni user si waaw waaye day même bu rafetee ba mel ni user tamit du du yeewoo ni moom wala moo tax yow su lay xaar dina tàgg nii rek yow nee na xel mi mu def pexe mi mu def ci ñaari sàcc yële dafa jommal ñi ci pale bi ñëpp. nee na ko gis nga waxtaan wi dafa bari ci pale bi sax ba nga xam ni ñëpp mbir yu Yuusuf la ñuy waxtaanee ñëpp daal. laqad barhanta mundu al-yawm al-awwal ala annaka jadirun yow daal dañu lay taban nii mooy Yuusuf Zulayxa dana la doomoo jàppe la comme doomam tey bis ni tey loolu mooy at-tabanni yow yaakoon am xewoon na ci yonent yàlla Muhammad ak Zayd man kay ma dégg léegi buur bi di wax ni moom daf koy daf koy euh, day bàyyi Zulayxa mu jàppe comme doomam Zulayxa day jàppi Yuusuf doomam nee na man daal moom waxul loolu buur ko waaye moom daal daa mel d'accord na ci hmm. tontuwul de waaye daa mel ni d'accord na ci de gis kalima ma mbokk yi ma nga doon déglu waxtaanu jigéen ñi kalima ma moom lim jàpp Yusuf moom mooy waru woon sax dugg ci palais bi gis ngeen iñaan jóge na fa waaye iñaan iñaan dugg si na fii waa li siiw ci dëkk ci kii bi moom lan la li may dégg lan la xaw ma ko de man de jotumaa jot information yooyu. waaye xam naa daal usership mbirum usership la ñuy wax yow dëgg la ni da nga koo jàppetoo loolu tànn bu rafet la loolu rafet na di waaye lii nag lii nag lii nag daa wuuteeg li suñuy maam xam ak suñuy baay kii dëkku fi hmm? waaw kii dëkku fi ab kaw kaw la waroo koo jàppetoo nee na bu su ma ko jàppee doomam kay moom place am day gën a kawe rek. waaw mais li mu gëm moom moom moom moom gëmul suñu yàlla yi comme li ko ni Sénégalais di waxee rek gëmul lii li ñuy gëm nee nag daal ngay lu raar la ngay wax daal moom tegul fenn ay affaire ngëm-ngëm moom ku nekk nañ ko bàyyi la mu gëm rek xam naa ne xale bi ku yeewu la ku mën lu bari la te it yu si bëree bëri yéen dëng-dëng yi mën na koo joyeen ne loolu baaxul ci yow loolu du sa intérêt jël naa décision du ma ci dellu ginnaaw damaa bëgg nga may nga may dégtal wax joo xam ne wax ju ma neex la nee na ko baal ma nee na damaa gis rek ñi nga xam ni mooy ñi yor pale ñi yor église ba ñuy wax ni ñoom user si bokkut ak ñoom gëm-gëm nee nañ ci noonu Zuleyxa la. place bi yu place bi nga am ñoom nee nañ da nga dem ba ñàkk ko ngir ngir xale bi ndax ñoom borom xam-xam lañ nee na ko yow boo moytu di dem ba wëlbatiku sax wa weddi suñu yàlla yi waxi caaxaan yi foo ko déggee kii xale bu ndaw la nañ ko jàngal lu bëri yar ko bu ko defee li xew ci dëkk bi ak li ñu war a gëm ak li ñu war a kii mu gëm ko xam ko. préparé ko préparé ko chaque jour muy nekk sama wet dama ko bëgg a xam a ko bëgg bëgga xamal aada yi dëkk bi ak li fi war ak li ñu fa war a taxaw yëpp dimbali ma ci loolu da nga bàyyi sa wax lii dama dama dama lay bëgg a aar rek nee naa la defal bis ni tey li nga bëgg waaye nag da nga may da nga may da nga may moytoo nag damay bañ nag maa ngi ñaan nga may nga may nga may moytoo yedd nag. ci li ma lay dénk nii daal yii ma lay wax daal comme que maa nekk sa wet ma bëgg daal lu ma lay wax lu ma lay dénk tamit nga jàpp ko noonu rek nee na ko damay yóbbul Potifar lekkam nee na Youssouf daal la wax ni bu kenn wax te buñ jox kenn dara loolu mu ñëw mu ni ah soppeeku gi moom li xew soppeeku soppeeku gi moom gaaw na di ah jàppe ko doomam rek tax na mu bëgg a programme pousse leen pousse leen. dana xaw janiban dana xaw janiban. mbokk yi il faut ñu jàngaleen discours bi nag ñu xam nag ban décision bu bees la ñu jël. lépp li nga xam ni liggéeykat yi seen liggéey ak la koy doxal mu ngi ci léegi loxol usersif lépp loo looy bëgg a na nga ci tàggu usersif nga bàyyi tamit lépp lu ngeen bëgg a def rek ngeen lépp lu ngeen di def na fekk mu exécuté ko léegi day jàng discours bi. léegi fukki ndab ngeen yóbbul ko ñuy garde palais bi préparé leen fukki ndab mbokk yi gis ngeen ni affaire économique mooy ju bàyyi ko xel xale bu ndaw la waaye biñ ñëwee liñ ko dénk mooy li waa palais bi dunde maanaam budget palais bépp fi mu nekk nii moo ko yor ku ci nekk nag la la lekk nga foore dem mooy seet la foore dem mu joxe ko palais beeg église baak ñëpp moo tax comme que dañ doon lekk ba simbileexu naan ba simbileexu lekk ba desal yooyu moom ci wàllu économie du dox moo tax lépp bu ngeen moytoo da koy wàññi xool leen gaa yi ñëw nañ ba rëy biir yi ñaar fukki ñaar fukki ndab hmm. déedéet waaye yéen pale ba ña nekk maanaam kii ba église ba ña fa nekk matuñ ñaar fukk nee na yàlla yaay limité seen lekk man gis man mosuma gis ay yàlla yu lekk yàpp yàlla yu lekk yow yaa ngi juum de أوليس يتوجب علينا أن نقدم أرزاق الخلق لله wërsëgu wërsëgu mbindeef dañ koy gaaral yàlla ñu def ci barke nee na ko waaw léegi bu fekkee yàlla ji kay yàlla ji nan la leen mën a barkeele lool nee na loolu cëru cëru ñiy liggéey ci église bi la. xanaa kon li nga bëgg a wax mooy yéen yéen kii ku nekk ñeenti ndam ngay lekk nee na ah loolu moo fi amoon de loolu lañ leen daan jox fukk ñaar fukki ndam lañ leen daan jox ci ñoom bëriwuñu te ñoom juróom rek lañ mu ne ah bis ni tey moom kon danañ limité yàlla yi si li ñuy lekk. <laughs> <laughs> waa léegi kon lu tee yàlla yi barkeelal suñu lekk ñun jaam yi ba mu bëri nee na ko ah ñun dina takk suñu biir fi mu nekk nii de <laughs> bàyyi leen seen wax ji. même yéen bu ngeen respecté wul ñiy liggéey fii ci kii bi ah église bi ngeen respecté boog yàlla yi mbokk ñu ñoo nekk ci église bi gis ngeen ni ñu rëyee ni ñu wuteeg nit ñi lekk rek. nee na kii moom moom vraiment boo ko fekk daal mi ngi wax ci affaire yu usage li ñu bind mooy juróom rek kenn du leen jox lu ëpp juróom juróomi ndab nee na ko ñaar fukk lañ daan jël ñun juróom lañu waaye ñaar fukki ndab lañ daan jël moom leen wax li xanaa ku nekk juróomi ndab ngay lekk. اليوم أعطي الكهنة ما يطلبونه nee na ko tey moom jox leen li ñu bëgg bu ko defee ma dem lijjanteeg li ci des le temps ma dem lijjanteeg kilifa gi li nga xam ni mooy seen seen mbir mbokk yi gis ngeen ni ñu ree ni ñu tuutee noonu ni ñu gàttee noonu la ñu ree lekk rek ndax nit ñi rek ñu ni bu ko defee ñu ni Yuusuf nee na leen waaye yàlla dañuy lekk ba ngeen leen di yóbbul eh, ñaar fukki ndab ñu ni ñaar fukki ndab yooyu yàlla yi ñooy lekk leen li ñuy des liy des ñu ñuy lekk mu yàlla du lekk dara aywaay sa waay toroxal ne leen waay ñun ne mosuñoo gis kuy kuy kuy jaamaarloog ñii di leen défier mosuñu koo gis de te Youssouf am nga sañ-sañ da xam naa. nee na ko tey jii daal la yàlla yi commencé weeru. nee na ko gis ngeen ni mu def ak ci Minifer nekk nii daal man li ma ci jaaxal mooy programme bi nar naa changé rek. mbir yi baa mi ngi dox ndax amoo benn problème mun ko déedéet nee na werante naag ñi nga xam ne ñoo nekk ci église bi nag njibarkat yi kalima maa mi ngi foon moom moom moom daa mel ni daal moom ñi nekk ci église bi dañoo nekk ci ay pexe fi mu nekk nii parce que li leen di wax daf leen déranger. Karimama moo nga xam ne moo nekk ci wetu Zuleyxa moo bàyyi liggéeyam ñëw fii di lijjanti loolu ndax lekk buur bi pare na muy waaw mbokk yi kooku ñu bàyyi ko xel. nee na ku ci nekk ku nekk li mu war a lekk na nga ko séddale selon ni la ko Yuusuf waxee. mbokk ñu bàyyi xel xale bi tamit gis ngeen gars yi day nee na dañu doon reetaan liggéeykat yëpp dañu doon reetaan Potifar dafa am ab xale mujj dénk ko mbir mi noonu nee na Potifar sax moom ñëw fa woon nee na ko man xam naa ne daf bu xale bi dafa weddi suñu yàlla yi du leen su jotal gëmu leen. nee na ko bu loolo looloo xew du fexe na dinaa fexe ba du mucc xale bi moom il faut ñu limité ko. danaa wax ak Seyda Zuleyxa ak Kutifaar yéen na seen xel dal foo ma lijjanti ko parce que ñoom liñ doon lekk par bis ñoom juróom lañu waaye lu tolloog lekku ñaar fukki nit la ñuy lekk Yuusuf ni leen loolu mën te nekk parce que yéen du ngeen wax ne yàlla yi dañuy lekk ñu ne déedéet yàlla yi lekkuñu waaye dañ ci def barke dañuy barkeelal affaire bi. mbokk yi gis ngeen kii moom xarit user sif la. user sif man la user sif hada ana mooy kan. Mimi Saabu ma ngoog. lu xew. ma al amr maada taf'alu huna. yow yow dëggantaan da ngaa weddi yàlla yi. loo bëgg a wax. maada taqsidu bi kalaamik. léegi rek laa dégg njibarkat yi ñu ni bu fekkee ni da ngay saboté suñu yàlla di ko weddale leen rey. na sa xel dal dara du jot lu dul yàlla soob lu soob yàlla ndax da nga weddi ne man daal du ma weddi du ma weddiw ma damay jaamu yàlla sama yàlla di yàlla di yàlla yi àdduna bi kooku laay jaamu rafet na baax na sama xel dal na baa xam nga ni yàlla dalaa yebal pour nga xettali ma koy waxal man waxuma ak yow de. sama bakken laay waxal sama xel lay waxal doo ñëw ñu fo. waaw baax na après dinaa ñëw. mbokk yi gis ngeen waa église bi mooy labbe yi ñoom commencé nañ nag bi exercice ñëwee xool ni lekk gi niñ ko war a séddalee. am na ñuy jël lu ëpp. ليتك كنت حاضرة حتى تري عمال القصر وقد انحازوا إليه وراحوا يهزؤون بالكهنة ولكن كيف يسع ولدا صغيرا أن يهزأ waa xale bu ndaw nan lay ñëwee di saboté eh, di reetaane yàlla yi loolu est-ce que am na صار يشهر بهم قائلا إن nee na ko ñoom dañ doon jël ñam yi ci tur yàlla yi léegi moom mu ñëw ni leen dañ ko war a wàññi waa baax ne dinaa ko seet sikki sàkk amul ci dafa wetti yàlla yi nanguta sujootal yàlla yi